bokk na ci li ci gën a fës dogal bi bàyyi ko ci famille omarienne la ñu daal di nag xamle mooy lépp lu aju nag ci jullik ajuma geek xadaratul juma daal nañ koy euh, ajandi dogal bi nag kii nga xam ne mooy xalif Thierno Madani taal euh, gannaaw ba mu waxtaanee ak nag euh, imam bu moske omarienne la ñu daal di nag jël dogal boobu dinañ ci daal di jukki ci kanam tuuti lay doon dinañu dikki itam ci waa ARTP ñu bëgg a nekk lépp lu aju ci wàllu jëflante bi ci wàllu télécommunication dina nekk loo xam ne lu jàppandal lay doon rawatina ci jamono euh, coronavirus bi la ñu daal di nag gis mooy faa ñu jàppale entreprise yi ak ñeneen bu ko defee wàllu confinement bi dal ci ñoom du leen tere rek def seen i liggéey ca barab ñu daal di nag euh, nekk situation doomu France yi nga xam ne nag ñoo nekk foofee euh, ca Cap Skirring nee ñu nag lu war a toll ci Eh, ñeenti téeméer ak lu war a tollu ci ak eh, ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett daanaka eh, ci ay touristes daanaka yëpp nañ leen ba ñu daal nag dem waaye am na ña ca des benn Michel di dinañ ci daal di nag dellu si ponk lay doon ci wax sa xalaat mbirum coronavirus bi ak dogal yooyu ñu daal di nag jël gaar bu maraîcher am na yenn ci ay coppite yi ñu ca bëgg rek indi fexe rek ba équipement yi gën jàppandal ci wàllu cet gee xeex wàllu doomu jàngoro gi waaye itam matuwaay yeneen yu jël rawatina oto yi bàyyi dinañu ñëw itam ci activité koom-koom bi nga xam ne lompoñ na am na jafe-jafe ci yenn ci ay secteur wàllu boulangerie ci la ñu bokk matuwaay yu ñu war a jël itam ci barabu transfert d'argent yi euh, banque yeeg yeneen def nañ ceeb gëstu dinañ ci daal di jukki dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy dikk ci wàllu tàggateeram buñ ca noppee ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon xibaar yi daal di buur Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce Guinness kis lay doon Sud FM Adama Ndione. Euh, ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak bile dogal bàyyi ko nag ci njabootu euh, famille omarienne la ñu daal di nag xamle mooy ngir daal di xeex euh, law gi nga xam ne Covid 19 bi mu ngi koy law dogal ba ñu daal di jël ngir jàppale gouvernement bi ci xeex ba ñu koy xeex mooy xalif ba di Thierno Madani Tall nekk fii ci Ndakaaru gannaaw ba mu waxtaanee ak imam bu mosquée omarienne Thierno Seydou Nourou Tall décidé nañu daal daal di ajandi lépp lu jëm ci wàllu jullik àjjuma ji waaye itam mbooloo ci barab euh, boobule di mosquée euh, omarienne ba nekk ci rue 6 angle Malick euh, si ba jëmmi jamono dinañu daal di jëlaat dogal ngir daal di wax ne daal nañ koy ajji dinañ ci daal di dikkat ci yaatal ñu daal di ñëw ci li nga xam ne nag bëgg nañ ko def ci wàllu connexion réseau wàllu joflante yi ci way xarala yi gis nañ ne nag agence régulation télécommunication di ARTP bëgg nañ ci indi ay coppite rawatina jamono xeex wàllu corona virus acteurs yi secteur yu télécommunication modification boobu la ñu bëgg mooy yombal liggéey bi acteurs yi fare ca ministère bu santé ba ak entreprise yi nga xam ne eh, dañuy daal di nag eh, dajale ay nag liggéeykat ba ci sax askan wi ndax ne ñu bëgg nañu képp koo xam ne yaa ngi sa kër mu bañ laa tere rek def sa liggéey ci rawatina jàllee ko ci li ñuy wax télétravail Josette Kaly agence de régulation des télécommunication et post mu ngi dugal loxoom ci xeexub coronavirus ARTP ci lëkkaloom ak ñetti opérateur téléphonique yi gën a màgg ci réew mi moo bëgg a indi ay tontu ci jamono ji ci lépp loo xamante ni ay soxla la ca ministère de la santé Abdoul Ly directeur général bu ARTP. waxtaan bi nag li ko waral mooy ñu mën a jox ministère de la santé loo xam ne loolu la soxla parce que ñëpp bu ñu jëndoon ay gel par exemple mën na njëriñ sax waaye du doon li gën moo taxoon ñu toog tey. ñu woow directeur générau Orange directeur général fri représentant Expresso waxtaan pour ku ne fannu bi mu war a mën a demee pour mën a jàppale ministère de la santé. ci loolu jot nañoo samp ay mesures yu takku rawatina ci mbirum technique te li si gën a fës bokk na si wàllum réseau bi ngir mu mën a am fu ne. les mesures ce sera d'abord li ñu war a njëkk def mooy seytu réseau bi xool ko càmbar ko ba nga xam ne du am benn euh, dagg-dagg bu fekkee ne dañu bëgg a liggéey ci bërëb yu sori te méngoowul te mu laaj li nga xam ne moom moo di internet ñi nga xam ne dañu nekk seen kër bëgg a liggéey ak seen waa bureau am connexion internet bu baax te doy. internet sur jàppandalu comité technique bi nga xamante ne ARTP samp na ko bëgg nañu gën a farlu ci wàllu monnaie électronique bi ngir dakkal li coronavirus bi di law ci jamono joo xamante ni fii ci réew mi nemmeeku nañ ni nit ñi dañoo tàmm wàllum cash. waaw mën nañ ci yegg si parce que xam nga opérateur yi kenn ku ne am nga sa moyen échange euh, électronique d'argent waaye xam nga loolu dafa di loo xamante ne ARTP dafa am ci ay yoon yu ko teg amal nañ leen lépp li ñu war ko yombalal pour que ñu mën a liggéey et puis aussi feebar bi bañ ci population bi. fi mu ne nii télécommunication yi saa su jot ñu ngi koy jëfandikoo ci ministère de la santé ngir xeex coronavirus bi loolu tax ARTP di sàkku ci connexion bi ak réseau bi mu nekk lu yomb am ci nit ñi laata bés ñuy dem ba yegg ci wàllum tëju ngir mën a yombalal nit ñi lii di télétravail. Josette bët sàllumu réew mi euh, foofee nga xam ne nag touristes yi doomu France yi ñu daal di nag euh, tëjoon ci ab hôtel euh, ngir daal leen rek càmbar foofa ca Cap di diirub ñaari fan gannaaw ba ñu njortee kenn ci ñoom ku am Covid 19 googule ñu jàpp ne nag test yi daal nay négatif waaye France fas ne daal di ay doomam yooyu mu delloo leen ca réew ma ba jamono ji sax lu war a toll ci ñetti téeméer ak lu tegal juróom fukk ak yeneen daal nañ leen delloo tey jile am nag ña ca des ay fukk. fukk fukk Ben Michel di na ci dellu si Ben ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adama Ndione waaw mu mel ni dégal gi ngir ressortissant français yooyu ñu delloo leen daal nañ koy defal ba lim gi sax yokku na. waaw effectivement comme ni nga ko waxee euh, lim bi nga xamante ni moom lañ daan xaar sax daanaka dafa yokku ndaxte euh, trois cent. Euh, quarante neuf la ñu waxoon maanaam ñetti téeméer ak ñeent fukk ak euh, juróom-ñeent waaye fu mu nekk ni lim bi euh, toll na ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di yëg ci ñaari avion yooyu nga xam ni moom lañu ñu te ngir delloo tubaab yi nga xamante ni ñoo ñëwoon vacances yi fii ci station balnéaire bu Cap Skirring vol bu njëkk bi nag mu ngi dem bu ñaari waxtu ci ngoon ci booru ñaari waxtu ci ngoon moom nag mu ngi yoroon lu toll ci téeméer. ak euh, juróom-ñaar fukk ak euh, juróom-benn euh, touriste ñaareel vol bi tamit embarqué ak lu toll ci téeméer rek juróom-ñett fukk ak ñaari touriste ñoom ñooñu le nag nara a dellu ñenn ñi si ñoom sax ñu ñu jot a seen i kaddu ñenn ñi sax ñaari fan rek lañ fi jot a am laa tax ndogal boobi di wàdd ngir mën a delloo tubaab yooyu le leneen li nga xamante ni tamit mën nañ ko nemmeeku Adama Ndione ci foofu le nga xam ne mooy aéroport bu Cap Skirring Euh, mooy euh, bëri na ay touristes yi nga xamante ni euh, bëggoon nañu dellu laa tax ñuy dugal naa tax dernier délai bi di jot waaye nag ay Euh, fukki fukki tourist mënuñu woon a jot a euh, yéeg ci avion boobu ndaxte ñaari roplaan yëpp dañoo mujjee fees ba sax euh, ñeneen ñi amuñu woon place ngir dellu ñoom nag dinañu mën a mujjee jël nag seen mal en patience la tax ñuy mën a dellu si seen réew ñooñu sax bokk na ñenn ci ñoom ñi nga xamante ni fësal nañu seen i déception ndaxte duñu mën a ñibbi ci seen réew. mbirum euh, vol boobu nag euh, dellu tubaab yooyu mu ngi ñëw gannaaw bi nga xamante ni euh, waxoon nañ fa benn cas suspect ci hôtel bi ñu wooyee club méditerranéen cas suspect boobu le nag ci mujjantal bi mu mujjee nekk négatif maanaam mujjul tan nekk cas coronavirus li nu mel sax jur soulagement bu rëy a rëy ci askan wi yeewoo ca station balnéaire bu Cap Skirring ñoom ñi nga xamante ni depuis lundi ñu ngi woon ci euh, njàkkare gannaaw kaa boobile waaye nag fu mu nekk nii euh, amoon nañ daal wàcc na foofee ci Cap Skirring ndaxte kaa euh, bi mujjee na nekk négatif leneen li tamit mooy dellu tubaab yooyu le nag dafay sone nag fin saison touristique bi ca Cap Skirring ndaxte ñoom seen saison touristique dafa daan dem ba jeexitalu weeru avril waaye fu mu nekk nii nag euh, dafay euh, mujjee euh, tëj ndaxte hôtel bi gën a mag foofu moom moo delloo touristam yi te vol daatul amati wàcc ca Cap Skirring li ni mel nag dina nekk lu xaw a métti ci opérateur touristique yi nekk fii ci station balnéaire bu Cap Skirring waaye ñoom tam buñ ko waxee da naam sax wax nañu li ni mel dina métti ci ñoom. yokk nañ ci tamit wax ni euh, fagaru daal moo gën faju te li ni mel euh, mesure bi ñuy jël nii mooy bi gën euh, ci ñoom donc madama jon lii la ñu mën a nemmeeku ci station balnéaire bu Cap Skirring foofi nga xamante ni tourisme mooy économie bi ëpp doole foofile may fàttali rek ñu mu touriste yi nga xamante ni ñoom ñoo embarqué ci ñaari roplaan yooyu ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett. Euh, jaajëfal ko bu baax a euh, baax euh, moom benn Michel Kanfoudi ñu daal di nag fàtte ne yëpp ci wax sa dina ci daal di bokk gare routière boo maraîcher ñoom matuwaay la ñu daal di nag jël bokk na ci wàllu équipement jumtuwaay yoo xam ne dinañ fexe daal ba aaru ci boobule feebar ay nouvelle mesures yoo xam ne nag ay yu bees yoo xam ne daanaka tàmbali nañu koo jëfee musaa Thiam. gare routière boo maraîcher bu Pikine daanaka client ñu xawuñu ko takkul lu bari noonu foofee nag benn kaar mu ngi tàngal motoram di waaj a dem ci biir dëkk bi foofee nag daanaka client yi sax bëriwuñu ci biir oto bi ci zone bi nga xam ni fa la oto horaire yi nekk rek daanaka bis yëpp ñoo leen di téye ci benn place ñoo ngi fa fekk ay apprenti ñii di fóot seen yére ñenn ji di waxtaan ci kaw foofee daanaka client yi bëreetuñ fii ci kàddu apprenti bile. client yi ah feebar bi tax ñu toq na. waaw client yi amatuñu ca bis horaire yi foofee tamit jàpp nañ ni client ñoo ngi fay ñëw waaye xawu ko takk lool. Aline Badara drame moom benn étudiant la bu ñu libéré fan yi ñoo ngi ko fekk ci kanamu bis bi lépp nag mu ngi ko teg ci loxol yàlla. corona bi moom yàlla kese moo ñu fi musal quoi. waaw dajalo bi moom. nit ñi mënuñ si dara parce que il faut que ñun fii la nekk di jàng il faut que ñu ñibbi non masque yi moom lii wuñ ko mais dañuy am leen ki Z yu ñu raxase suñu loxo yi chaque minute. wuuteeg nag keneen ki nga xam ne dañ koo fekk ci biir bus bi mu daal di toog ci benn place jàpp jàmbaram daal di takk masque am nag xamal leen ni daal matukaay yëpp dañ ko war a jël li jëm ci wàllu feebar bi lee. dinaa sax mooy loolu noonu parce que moo tax léegi fu ñu jëm suñu kenn nit ñi bëri nañ dañuy jéem a takk masque bi pour protéger ñun suñu bopp ak aar ñeneen tamit parce que yow soo tisoolee si masque bi laa yem ñi tamit suñ tisoolee si masque bi laa du dugg si biir. mais yow am nga na ñu ko amul. waaw na xam naa ne dañ ko liiwul dañ ko bëgg a yor tamit aussi dañ naan waaw ndogal yàlla am na ñoo. li jëm ci wàllu nag tiitaange gi mel na ni xaw naa wàcc lool la ci li jëm ci wàllu chauffeur yi ñoome nag jàpp nañ ni daal lépp lu jëm ci wàllu matukaay dinañ ko jël bu baax a baax rawatina ci apprenti yi bi nga xam ne daanaka saa su ne ñoo ngi te client yi. dañuy jël masque waaw. soli gant ndax xaalis bi moo tax. El Hadj Moussa Thiam bi moo doon jokkoo ak fii ci gare routière bu rajo Sud FM. Alaaji Moussa Thiam kay ci la ñu sax wax ne doore ko ëllëg lépp loo xam ne xeetu euh, oto la buy bàyyikoo ci euh, diwaan yi di région yi dinañ fexe euh, ba daal di koy setal daal di koy désinfecté waa service d'hygiène dinañ daal di nag matal liggéey boobu bu ñu sukkandikoo ci chef exploitation bu garbo maraîcher di xalifa Guèye ñu déglu ko ak Alaaji musa Thiam. bon ñun nag depuis que président joxe instruction yi directeur général créé ay commission pour sensibilisation ax aussi ñu veiller ci lii am yëpp ci garage bi. pour le moment euh, réunion nañu avec le chef de service bu santé bu district bu Pikine bi ñëw na ba ñu def ay formation pour euh, euh, jël sañu nit ñëpp sànni ci terrain bi actuellement ay robinet comme yële ngay séen moom la ñu am def ci eau de javel loolu lañ ñu conseillé. bon mélangé ko fi la nit ñi raxasoo ak yëpp actuellement aussi euh, am nañ ay euh, pompage yu ñu war a commencé ak waa service di d'hygiène ñoom laay xaar nii fi ma taxaw pour ñu commencé oto bu ñëw rek ñu gaare la pompe la ngay dem bon jël nañu aussi ay disposition pour clients yi war a voyager que à partir de demain le minimum mooy voyageur bu ne war nga am benn mouchoir à jeter pour boo waree sëqat nga tax ko sa kanam pour bañ a euh, déranger nit ñi bon amagum nañu ay gants yu ñu jëndagum ak ay masques échantillon yaa ngi nii moom la ñu jënd ak ay gants moom lañ bëgg a distribuer léegi nit ñi bon loolu yi laay xaar pour ñu joxe ko. pour le moment aussi euh, am na ay tenues yu ñu utal euh, agent yi fii pour ñuy pomper am masque yeex yëpp pour mën a vraiment veiller ci lii donc ñun daal depuis loolu commencé nañu. parce que xaaruñu woon kenn daal xaaruñu woon kenn demain nag c'est le grand jour ci la war a démarrage pompe oto yeex yëpp yëpp yëpp ci lay démarrer le jeudi <laughs> wàllu koom-koom gi nag daal di nag am ay jafe-jafe ci wàllu coronavirus bi ñu ci bëri ci entreprise seen i activité daanaka daal nay rek taxaw dem beeg dikk bi ñu daal di koy nag yemale syndicaliste yi nag di lancé appel état bi ngir mu daal di nag gunge entreprise euh, yooyu le euh, ak liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur informel bi Elimane Diouf mooy secrétaire général bu confédération syndicat autonome euh, yu Sénégal ñu déglu ko Khady Sène jàpp mooy euh, vraiment feebar la boo xam ne moo mën ñëpp moo mën même pays développé yi waxatuma laa nag ñun suñu pays yi nga xam ne économie bi dafa ndaw constat bi mooy euh, entreprise yenn yi presque dañuy tëj parce que am ñu benn activité bu ñu a def boo demee dans le tourisme boo demee dans le transport le transport aérien moom se presque bloqué appel bi ñuy lancé état bi daal mooy mu def tout pour xool lu muy accompagner entreprise yooyu ñu bañ a di ko appel aussi mu accompagner travailleurs yi dans tous les secteurs parce que am secteurs yoo xam ne les gens dañ doon liggéey à la tâche ñu ngi liggéey journalier donc ñooñu ñëpp amatuñ presque activité bu ñu liggéeyul secteur informel moom rawatina parce que les gens peuvent vaquer à leurs occupations bu ñu mënul vaquer à leurs am source de revenu quand tu vas dans les grands marchés c'est pas possible de regrouper les gens donc day andi blocage total de seen activité te ñooñu au jour le jour li ñu doon jaay ci lañ doon dundee dundale seen famille donc yaakaar naa ne daal appel bi mooy vraiment comme ni yenn pays yi def nan na ñuy defee ba euh, une solidarité bu yaatu et ñu ñii liggéeykat yi war nañ ci dugal suñu loxo syndicat yi dugal ci seen loxo mais état bi dugal ci loxo institution yëpp dugal ci seen loxo pour ñu xool ban campagne de solidarité la ñu am vers liggéeykat yi nekk dans les difficultés entreprise yi moom état moo leen mën a suqali jàppale leen ñu xool yan forme d'accompagnement lañ leen mën a parce que situation bi daal euh, doy na waar lu boulanger yi itam ñoom euh, desuñu ca gannaaw ne ñu daal ay doxalin yu bees lañu bëgg rek ñu daal di koy amal ci euh, coronavirus bi <laughs> mesure yi nga xam ne nag ñu ci bëri jàpp ne nag euh, taxu ko sax doy yenn ci ay clients yu bokk di sàkku la yeneen dogal yu gën a dëgër ci loolu itam am na barab yu yëngu ci wàllu nag koppar weccante xaalis foofee itam gis nañ ne yenn ci ay rëq-rëq daal na ci am gëstu gi ka ji faatu bari. nag fii ci Sacré Cœur amul gel amul masque amul sax li ñuy woowee nit ñi dañ sorianto lu toll ci benn mètre fii dangay dugg di génn jënd sa mburu nim la neexee. bu amee lenn loo xam ne nag lu ñu seetlu la moo di ne eh, saa bu kenn jëndee dafay am benn waay boo xam ne day ñëw daal di fomp lii di comptoir bi wàllum cet doon na loo xam ne soxna si di jënd si woon mburu daf koy bàyyi xel bu baax a baax. boulangerie yi respecté wuñu distance bi parce que rëyul rëy boo xamte ne nii nit ñi mën nañ def un mètre entre. mais gis nañ au moins que ki nga xam ni mooy joxe mburu bi ak ki nga xam ne mooy encaisse xaalis bi duñu benn te ki nga xam ne mooy joxe mburu bi au moins sol na gant donc tane na. keneen ñu fekk ko ci jardin bi nga xam te ne soriwul dara boobule boulangerie moom mi ngi nekki di lekk mburoom ni mu ko neexee mburu bi nag daal na ko jënd si suba si waaye li mu seetlu moo dina am na ay coppite ci ni ñuy duggee ci boobule boulangerie. fu ma demoon tey suba jënd naa fa mburu mais amul distance bi ñu wax quoi gàddawuñ distance boobu. mais avant ñoo dugg jox nañu gel hydroalcoolique ñu def ko suñu loxo nga doog a dugg jënd. waaye lii lu tuuti la loolay waral ba sax muy laaj ñu gën a yokk yii mesures yi ñuy jël. ku nekk war nga assurer sa sécurité boobu assurer sécurité keneen waaw mais ñoom seen au niveau des boulangeries ñoom tamit war nañ jël sécurité boobu am gën benn gardien ma taxaw ci buntu bi. kenn duggee ba génn keneen dugg. waaye benn laaj di samp moo di ne ndax am na ay coppite yu ñu gis ci banque yi ak fi nga xam ne dañ fay jële xaalis. banque yi moom gisaguma ci changement de comportement franchement parce que chaise yi nañ ko aligné woon ba léegi noonu nañ ko aligné caissier yi gisuma leen ñu sol gant alors que. waroon nañ sol gant wala au moins chaque opération suñ ko paree ñu def gel antiseptique. mu mel ni des na ay matuwaay yu ñu war a jël fii nga xam te ne boulangerie la wala institution financière nit ñi di fa daje lii nag ñu war ko def ci ni mu gën a gaawee bu ñu bëggee xeex lii di virus Covid 19 bi nga xamte ne mi ngi wëy di feeñ ci mim réew. Euh, ci loole sax wàllu mburu moom ñuy jaay ci boutique yi dañ ciy àddu ndax gis nañ ne euh, lu ñu fës la ci jamono ji la ñu ci bari nag euh, nangu nañu dogal boobu ñu jàpp ne jaay bi mburu mi ci boutique yi ak ñu koy daal di transporter daal nanguwuñu ko bu ñu sañoon ñu daal di koy nag di boobule dogal nag arrangé wul benn yoon boutique yi ak livreur yi ñu daal di dajeel ndax jàpp nañ ne wàllu cet gi client bi moo ko war a amal gëstu geek Aïssatou Gueye Ba wax ju bari jóge ci kaw ndax dañoo war a dakkal njaayum mburu mi ci boutique yi ngir rek gën a sàmm wér-gu-yaram askan wi ndax wopp boobee ji Covid 19 ñi nag fii ci Sacré-Cœur ñu daje ab benn soxna mu génn ci ab boutique yore nag ab mburu ci loxoom waaye loolu sax terewul mu ñuy xamal ne ñu dakkal lii di njaayum mburu yi ci butik yi dérangé wu ko benn yoon ndax loolu rek moo mën a sàmm wér-gu-yaram askan wi. waaw suñu wér-gu-yaram la sàmm. bu ñu ko teree ñu dem jëndit ko ci boulangerie moo gën a wóor. bu baax a baax pour nuy jëmee boulangerie di ko fa jëlee ndaxte loxo microbe la quoi gisoo ni bu kenn nuyoo borom pousse ci mi di ko yore di dem poussière bi di si dugg xam nga du duñ si jël yenn matukaay xam nga des fois mu wadd mu jëlaat defaat foofu. ñu dox tuuti yegg ci benn boutique. daal di fay fekk ab livreur buy indi ay mburu boutiquier bi fa nekk di ñu xamal sax ne moom bugg ci wax. déggal ma kii nag di livreur bi ñu dajal moom moo ci bëggoon yëkkati ay kàddu waaye mu ñu xamal rek ne daanaka problème bi fi mu féete mooy ñii di jënd si ñoo mën a rek sàmm seen bu wér-gu-yaram ci kaw nu ñuy yore mburu yi. le problème c'est pas les boutiquiers ñi nga xam ne ñoo jënd clients yi jënd mburu bi ñoo ñoo difficile pour jaay pain. boutiquier bu jaayul mburu tey jii mënoo def maanaam coin bu ne nga coin bu ne déjà ñi ngi yëkkati ñi ngi yëkkati ñi nga xam ni que ñi ngi nekk ci kaw trottoir yi mhm. mais boobaa kon nit ñi war a xëy liggéey wala élèves war a xëy dem jàngi mais kon du ñu ndekki non boulangerie mun mënuñoo nekk fépp boulangerie yi mhm. il faut que ñu am ay point de vente yoo xam ni que euh, euh, gars yi fa la ñuy euh, pour mën a jaay te te instant yi ñoo fi ne. Eh, di fàttali nag ndakal li di jaayu mburu ci boutique yi tàmbali woon nañ ko fi waaye mu mel ni nag suivi moo nekkoon problème bi ba tax na ñu dajal nag seen xel dalu ci benn yoon.

Euh, Aïssatou Gueye euh, Ba ñu daal di ñëw nag ci wàllu koom Covid 19 bi ba tey ci plan économique bi nga xam ne amal na ci rëq-rëq ndax tëju frontières yi ak Union européenne yi ni mel dina am ay jeexital ci jëflante bi ci wàllu nag commerce rawatina la ñuy génnee ci réew mi di dem bitim réew directeur agence sénégalaise bu yore wàllu promotion exportation yi moo ko daal di xamle docteur Malick Diop mu ngay dalal xel yi ci nag lu aju ci euh, yooyu la weccante ci wàllu commerce nee na daal réew teg bët ak barab yi nga xam ne libre nañu ngir daal di cay rek amal jënd ak njaay docteur Malick Diop ak uh, Adja Habsa Elimane Wane li xew mooy il nit ñi xam ko lan mooy indi jënd ak jaay ci diggante réew yi benn mooy réew yi ku nekk signé ay accord yoo xam ne jëndkat yi ak jaaykat yi da nga leen di yombalal li nga xam ne moom mooy seen exportation wala seen importation bu ñu nee tey jii nii Afrique zone UEMOA wala zone CEDEAO tey jii nii dafa am li ñu naan tarif extérieur commun signature accord yooyu c'est la même chose suñu demee Europe tey jii nii Sénégal dafa bokk ci initiative bi ñu naan tout sauf les armes lépp loo xam ne mën nga ko jaay Europe te gànnaay bokk ci te doo doo fay douane ñaareel bi mooy li ñu naan foire yi salon yi ak exposition jaaykat yi daje ku ci nekk won sa morom li nga xam ne moom nga bëgg jënd wala li nga xam ne moom bëgg a jaay su ñu signé ay contrat ku ci nekk dellu réewam daje yooyu amatul salon professionnel tey jii ne amatul foire amatul exposition amatul pourquoi parce que Covid 19 bi jàngoro boobu fi nekk moo tax ñi koy organiser sax organiser donc dafay gàllankoor bu baax jënd beeg jaay bi bu ko gàllankooree nag li ëpp solo tey jii nii mooy ku si nekk xool naka nga mën a régler sa problème tey jii nii européens yi pour régler seen problème dañuy jaay entre ñoom africains yi tamit dañuy jaay ci seen biir Sénégal loolu depuis euh, quelques années ñun dañu ne li ëpp li nga xam ne moom la ñuy jaay. jël ko fii di ko jaay bitim réew Afrique lañ koy soo xoolee ñu xaymaa tey jii ni exportation Sénégal c'est mille neuf cent quatre-vingt-cinq virgule un jëlee téeméeri pàcc ñeent fukk ak ñett yëpp ci biir Afrique lañ koy jaayee ci zone euh, ouest africaine loolu dafa am solo deux mille vingt lan lañ namoon te tamit ñi ngi ci ba léegi ñu gën a yokk pàcc boobu parce que dafa am li ñu naan zone de libre échange continentale léegi tey jii nii ñeent fukk ak ñeenti réew yi nga xam ne ñi ngi biir Afrique la ñu bëgg a boole accord bi ñu naan zone de libre échange te te avancé nañ ci bu baax pour que tamit ñu mun def ay jënd ak ci biir loolu léegi nag ñu bëgg ko ñu bañ ko li nga xam ne Sénégal lañ koy defaree tey jii nii euh, sénégalais yi loolu la ñu consommé amatuñ beneen solution donc dina tax tamit aussi ñu gën a gëm li nga xam ne tey jii nii moom mooy jógee biir Sénégal te nga xam ne lu baax la lu ñu war mun a consommé la mbir mi bett na ñëpp dëgg la mais am na mesure yoo xam ne tey jii nii gouvernement Sénégal jëloon na ko te mi ngi continuer di ko jël Euh, askan fare pare nag ca Colobane daal di nag euh, am ñetti fan yoo xam ne ndox ma ñuy naan amuñu ko loolu nag am ay jeexital ci seen wàllu nag activité bés bu yàlla sàkk ba tax ñu koy daal di nag euh, ñaawlu di xamle ne yooyu la nag xeetu rëq-rëq fa ñu daal di kii nag jokk ndax la leen indil ci yàqu-yàqu mu ngay tàmbalee nag bari ki nga xam ne mooy Aïda Ndiaye habitante foofu ca Colobane indi na ci leeral. ci jokkoom ak Birama Ndiaye. li ñu doon jafe daal mooy daal depuis yàgg na la ñun suma man côté ma dëkk nii balaa ñuy am ndox ay vers les coups dañuy vers les coups de deux heures du matin. ndox mi soog a ñëw mais bu ñëwee du am pression par tuuti lay xel parce que si lay xel ba ay vendee kii de sept heures du matin léegi sa duñu feesal mu daa dee tëj loolu la ñu léegi la on a vu que ndox mi bon presque tey a ah, amatul démb moom comme bi yëpp amuñu ndox dañu mujjee ibbi pompe bi bi ibbi pompe bi pompe jàkk bi nit ñi waa koñ bi fi nañu doon rot réclamer la CNO woo leen wax leen ko après ñu ne ma bon léegi ñun yëguñu woon taan boobu mais xaar ñu vérifier ba xam xam yëguñu ni que Colobane waroon na am ndox bokkul woon suñu suñu information daal xaar ñu vérifier après bu ñu vérifier après ñu ne ma cinq minutes ma woote cinq minutes après mu jotee ma woote ñu ne ma d'accord nii si ñu ñu xool lu waral lu waral kii yooyu am daal inconvénient yooyu am ñu koy xool ba xam mu ne ma la di war rek ñu woo duñ ko wax am na ñeneen ñu dëkk ci kon bi ñu ñu woo duñ ko wax ma ne leen d' accord après par la suite daal bi ñu jullee tisbaar ba pare prière quatorze heures bi ñu ko defee pare laa gis ni que ndox mi ñu ñëw mais nànk euh, kii bi robinet mbedd bi fontaine bi nekk ci mbedd bi mu ngi commencé di xel li mais par tuuti daal bariwul ñu ñaa ngi nii te dañu ram non non man suñu actuellement man ñu dëkk ci suuf ni aw ma ndox suñu waa kër tamit ñu nekk ci suuf sa kër famille ñu ngi suuf aussi amuñu ndox ñoom dañuy rooti jeer fii ci robinet mbedd bi ñu ngi root foofu mais man ñu nekk ci kaw man man toujours c'est comme ça ah, man balaa may am ndox vers les coups de deux heures du matin lay fekk ñëpp a tëdd dañu paroo ba pare ba tëdd pression bi mun a yéeg la laay soo bi am ndox jëmmi di root jëmee quatre heures du matin ñu di veille ça fait longtemps si noonu laay dund dafa métti na si ñun trop métti na si ñun mais comment faire bi ma gisee lii ma jaaxle trop ma ne ñun coupé nañu ndox mi de kenn yëgul dañu daan communiquer affaire bi mais bii pas ñu yëguñu bon bi ma leen ko laajee tamit bu ma woo leen wax leen seen numéro vert loolu nag ma wax ñu ne ñoom programme amuñu noonu programme ni ko Colobane dañoo war a tëj. Euh, ñu di nag euh, desandi ba tey ci wàllu coronavirus bi ak mouvement sportif bu Sénégal moom mi nga xam ne nag jébbal na contribution fii ci àjjuma ji euh, ci ab ndaje bi nga xam ne nag dinañ ko daal di amal ak ministre bi ñu dénk nag wàllu sport bi arrêté bi ñuy arrêté nag compétition yi jëm ci wàllu nag sport yi ndax coronavirus bi jaraaf bu ndakaaru ñoom nee nañ daal dinañ topp dogal boobule loolu ñooy gis-gisu médecin bu club bi. bi nga xam ne nag euh, ñu ngi koy euh, xaarandi sax euh, ci réunion bi nga xam ne dinañ ko daal di nag amal ngir ñu daal di apprécier bi situation yu Youssou Diallo mooy vice président club bi ñu déglu ko Kalaaji Malick Ndiaye. situation la boo xam ne mësta am fii si si si Sénégal ak ci àdduna bi. waaye donc li njëkk si li ñuy saluer mooy décision yi nga xam ne moom la autorité yi jël ak fédération bi ak ligue professionnelle bi pour arrêter manifestation yi. ak surtout manifestation donc euh, sportive yi parce que mais nag ñëpp xam nañu aussi donc loo xam ne dina yomb ci équipe yi parce que comme ni ma ko waxee rek day am ay impact sur le plan sportif ak financier parce que tey jii joueurs yi tey jii bu ñu war a ñëw dañu leen war a aussi protéger ak suñu encadrement technique parce que bu ñuy ñëw donc di entraîner aussi ah kenn xamul ndax bon feebar bi mën na leen dab foofu wala dara mais tax moo tax nag léegi ñun euh, dañoo am sax réunion tey pour xam daal naka la ñuy gérer donc arrêt bi parce que kenn xamul ndax donc un mois yi si la ñuy yem wala après dañ koy continuer waat au de la des un loolu yëpp day tax inconnu boobu tax doo pour nga a xam nan ngay gérer donc mois d'arrêt bi donc dafay dafay metti semaine bii xam naa ñu moom entraînement yi dañ ko arrêté mais fu mu nekk nii foog ñu waxtaan ak suñu médecin yi ah, pour ñu mën a xam tey jii yan disposition donc la ñuy jël xam ndax donc une semaine d'arrêt bi entraînement bi doy na wala dañuy continuer waat yeneen jour encore pour l'arrêt mais li gën a am solo ba am solo aussi mooy ñun tey jii bu un mois yi jeexee ah suñu équipe bi nga xam ne bu championnat bi waree reprendre équipe bi war na compétitif ah bu nag loolu day indi beneen beneen problème ba boole ci tamit aussi ah arrêt bi tamit aussi dinañu indil ay jafe-jafe sur le plan financier parce que tey jii même boo arrêté tamit joueurs yi da ngay continuer aussi donc di leen ko yokk bu ñu ko yokkaatee encore donc c'est des mois de salaire supplémentaire qu'il va falloir payer waaw loolu yëpp nag aussi donc lu ñu lu ñu war toog ñun waxtaanee ko ak xool donc nu ñu ko mën gérer daal mais situation la boo xam ne aussi tey jii ñëpp daal ku nekk daal gën gaaw. mu gën gaawee ci loolee sax ngir daal di maintenir forme joueur yi euh, mën nañu daal di entraîner wu ku ci nekk euh, fa nga nekk euh, waajtaay ku ci ne waajal sa bopp ci plan rek physique lool nag ci principal bi nga xam ne nag moom pour joxe na ab plan programme joueur bu nekk bu ko defee mu daal di tàggat boppam coach adjoint gaynde yi nekk itam préparateur physique di Cheikh Fall jàngat na ko El Hadj Malick waaw athlètes yi moom situation bi ni mu demee moom dafa dafa dafa raar dafa naa ne mosul am si si football wala bu amee tamit man ba ma nekkee entraîneur ba léegi maa ngi koy soog a dund donc mbir mu demee bu mbir mu mbir mu mel ni su amee ñun ñooy adapté wu ni ñu adapté woo mooy joueurs yi dañuy noppalu mais noppalu bi moom moom la tubaab di ooy repos actif dañuy noppalu waaye ku nekk dina dina def individuellement benn entrainement boo xam ne euh, club bi moom moo la koy jox donc préparateur physique bi moom dina élaborer programme boo xam ne xëy na daf siy waxtaan ak coach agent bi bañ tënk dara ku nekk ñu wax la ne yow lii nga war a def ak li ak lii le temps ñuy reprendre parce que joueurs yi ñoom ñëpp des fois bokk ñu ñii seen niveau day toll fii ñeneen seen niveau toll fële waaye ku si nekk daal dafa am lenn loo xam ne moom nga koy jox mu koy def en attendant di ñaan situation bi dañ pour équipe bi retrouver wu. waaw li gën a kii li gën a baax si mooy lépp loo xam ne dañ koy def ñu waxtaanee ko. Eh, te ñun noonu la ñuy doxalee fii préparateur physique c'est vrai que moom moo gérer préparation physique mais lépp loo xam ne xalaat na ko wala tënk na ko pour def ko daf si waxtaan ak entraîneur principal bi ba entraîneur principal bi d'accord si ñu soog ko génne parce que quel soit alpha moom mooy njiit bi moom mooy njiit bi donc kenn du def loo xam ne moom yëgu ko wala doo def loo xam ne tàggoo ko lépp loo xam ne da nga koy def da ngeen siy waxtaan ba déggoo si après ngeen jox ko joueurs yi ñoom ñu appliqué ko noonu lay demee si staff boo xam ne bëgg nañ mu jaar yoon. dañu daal di koy door jotaay wax sa xalaat bi 88 628 98 98 ak ponk yi le mooy wàllu coronavirus bi dogal yi ñu ca mujjee jël wàllu nag ajandi lépp aju ci wàllu jullik jumaa yi ak yeneen rassemblement ci wàllu diine gannaaw ba ko église bi dooree bokk na ci itam ñooñu ñu daal di rapatrier dem seen réew doomu France ba ci garage yeeg matuwaay yañ cay daal di nag jël oto yeeg yeneen 88 628 98 98 ñu jël kenn ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. Adama man la Chérif. ñu lay nuyu waa Chérif. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allahu azza wa jal mu aar Sénégal aar Amérique aar adduna bi yëpp aar suñu docteurs yi aar suñu infirmiers yi aar ñëpp ñi nga xam ni ki ñu ngi aajowoo ci wàllu docteur yal na leen yàlla aaral boppam. parce que ñooñu bu leen yàlla aaree mi ngi mel ni ki ay commandant yu ñu sendee ñu ñu yónni ci champ de guerre ñu nekk ci champ de guerre ñooñu bu ñu bu ñu leen jëkkee ne faagaagal rek ñi ci des yëpp armée bi boo moytuwul dañ leen di faagaagal kon yal na leen yàlla aar yéen docteur yi ak ñëpp ñu màcc seen xam-xam màcc ci wàllu faj yal na leen yàlla aar te jàppale leen beneen bi may wax maa ngi wax ni. Euh, nu mu tuddati euh, organisation des médecins nañu jóg wax ñu dëgëral sen wax hmm. parce que nguur gi mu ngi def li ko war nguur gi mënul wax ak askan bi ci yenn waxi nii même Amérique fa sax fii loolu moo fi xew France loolu moo fa xew yeneen médecins yi nga xam ne ci nguur gi mënu leen tegul loxo seen kaw ñoom ñooy jóg wax ak askan bi wax leen li ñu war a def parce que waxu nguur gi dafa nooy trop dafa nooy te feebar bi bi ci gën a dangereux mooy du ñu ñu ñu xam ni ki feebar nañu ñu leen di faj ñooñu ils n'ont pas de danger ñu am danger mooy ñi nga xam ne ñi ngi ci biir peuple bi am feebar bi te amuñu benn symptôme te bu feebar bi commencé ba léegi waxoon naa ko ca njëlbeen ba amul benn dëkk boo xam ne kii bi am na fa ñu ne commencé na cinq dem na un amul Chine rek moo ko fa def te dafa tëj réew ba yëpp daf ko tëj hmm. daf ko tëj ne léegi mi ngi wàññeeku Sénégal nag ñu ngi dem ci 31 bi mu commencé ba léegi dégguñu ni wàññeeku na juróom wala wàññeeku na fukk mais day yokku rek léegi docteur yi nañu jóg wax te beneen bi mooy tey gis nga dëkk yi développé yëpp ci problème la ñu jógee développé wu y a pas de fatalité fatalité lii yàlla moo ko dogal pour wan ñu won yoon bi ñu war a développé suñu réew yi li yëpp ku ñu développé yëpp ci pendant la guerre la ñu am stratégie de développement biñ fa jógee la ñu développé seen réew yi nañ ci jàng lu bare bare bare bare loo xam ne ki tey bu ñu jógee ci lii rek dinañu xam fu ñuy jutlu suñu entreprise yi duñu memberlu suñu euh, euh, euh, marchand ambulant du ñu dee suñu yaay yi seen ma lu ñu doon jaay dinañu am lu ñu lu ñu loolu nguur moo ko war a jàng. Hmm. dafa am ñoo xam ne kii ñoom seen. ok euh, loolu di gis-gisam gis moom Chérif ñu xaar keneen jël ko Alsaan bitim réew 33 841 22 33 33 825 18 30 beneen auditeur ñu jël ko ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaw sëñ bi. yooyu Adama na nga def. waaw maa ngi fi. mu toog Ciss Mbour ngi lay nuyu waaw. jox la nuyu waa Morona yëpp. ñu ngi leen di fay. góor yeeg jigéen ñi mag ndaw ak suñu mbokkkat yi yëpp ñu ngi lay a baax. <laughs> yi day hmm. xam naa metti na waaye dañ koy génn rek. Hmm. ndax xam nga ah bi ma xamee sama bopp léegi bokk musuma ñu ne àjjuma dañ koy arrêté wala nangam dañ koy arrêté hmm. waaye nag. situation moo obligé ndax dëkk yi nga xam mooy dëkk ci lislaam ku mel ni Maroc lu mel ni ay Irak ay nangam nangam yëpp comme dañoo arrêté loolu ñun même suñu ko mënul lañu ko jéem parce que feebar bee ko feebar bee tax nañ ko jéem bu kenn sax ci rek nag naan mbedd yee naan loolu mosu see am du fi am nenoon nañ ko jéem rek yàggul pour rek aar feebar bi rek ndax feebar bu lawee ah ni ma gisee tey journaux yi tey wax ko adduna bi tey la fa dee ci loolu xewul Sénégal yan si yàlla mos yal na yàlla fexe ba daal feebar bi nit ki nit ko am nit Sénégal hmm. ñu yem ci képp te en arrière transport yi tamit loolu yomb na fekk wax naa ko sànq gis nga suñu mbokk yi takk der yi taxaw ci tali oto bu fees ba fees ba fees nañ ko arrêté ku amul place ñu wàccee la ñu bañ laa delloo paas nga xool seet ñaari fan kenn du dugg oto boo xam ni dafa fees ñu la arrêté amoo place ñu wàccee la oto bi jàll ñu bañ a sax ak ci borom oto bi ëllëg hmm. su ma gisee oto boo xam ne fees na du ma ci yéeg hmm. mu jeex tàkk waaye xam nga fekk oto day fees nga nga arrêté ko am loo ko laaj peut-être mu jàll day continue loolu rek hmm. nañu yar sunu bopp suñu yaree sunu bopp rek léegi léegi Sénégal neex yàlla na jàmm yàgg Sénégal teeru yàlla na fi yàlla na fi yem jeex tàkk ci barke Rasulullah ci barke Jërëjëf waaw nuyu waa Mor euh, ñu daal xaar keneen ñu jël ko ñu ngi xamal ne nag ministre bi ñu dénk wàllu santé mu ngay tàmbale nag def état bés bi ak la ca daal di nag am ci xeetu euh, ñi amee Covid 19 boobu ndax am na waa wala déet dinañ ci daal di jokkoo jéeg ñoom euh, ci biir xibaar yi ci kanam tuuti lay doon ñu jël keneen allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa Adama na nga def allo. dégg maa ngi lay dégg. maa ngi dégg bu baax waaw maa ngi fi. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu ki ma dugal ci ligne bi quoi. waaw américain di wootee fii ci Amérique. waaw maar waaw. waaw Adama euh, affaire feebar bi ñuy wax man li ma bëgg daal mooy. Mhm. Euh, fi ñu toll nii ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk ci diaspora bi bu fekkente ne mën nañu ko communication bi nañu ko wàññi te jéem a seet naka lañ mën a dajalee koom-koomu xaalis. ñu fas yéene ko jàppale réew ma booleeg la nga xamante ne moom la banque mondiale jox muy 22 milliards yi ak li état Sénégal génne ñu jëm ko dugal ci fi nga xamante ne moom la euh, ñu war a toppatoo affaire wér-gu-yaram bi ak maanaam affaire virus bi ñu jëm ko ci dugal jéem a jàppale waale ñi nga xamante ne mooy service d'hygiène renforcer leen ay oto yokk éléments yi ñu contrôler mbedd yi ñu jëm a nettoyer mbedd yi lekk yi ñuy jaay ci mbedd yi bitig yeeg ecole yeeg yëpp ba ci kafe yeeg yooyu ñu jéem a seet naka lañ ci taxaw ba nit ñi xaw ko wàññi pour virus bi boo waaw kon maar nga jéggal ñu ñu jéem a dem fële ca ministère euh, jël ministre bi ñu dénk wàllu ab fanweeru kaa ak juróom benn yooyu am na ñaar yu si wër bon nag mën nañu wax ne fanweer ak ñeent ñoom ñoo nekk sous traitement actuellement may wax ne patient yi nekk dakaar ñu leen di faj ak Touba paj mi mi ngi jaar yoon bu baax ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi fàttali que ne sénégalais yi respecté tere yi xamante ne def nañ ko pour ndaje yi ndaje yi nag mën nañ ci lim ngénte yi mën nañ ci lim mariage yi mën nañ ci lim dëj yi mën nañ ci lim activité cérémonie religieuse yi loolu nag am na arrêté ministère de l'intérieur bu ko tënk ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi yëgal ne hangar des pèlerins bu aéroport Léopold Sédar Senghor fii ci Dakar danañ ko jël def ko benn lieu de mise en quarantaine pour que képp koo xamante ne ci ñaar fukki fan ak juróom yu weesu sa egsi fii ci réew mi jaar nga ci dëkk boo xamante ne da nga am Covid 19 te dëkk yooyu ñu xam leen bu baax. dana la jël mettre la en quarantaine observer la bu baax pour xool ndax jàngoro ji dana déclaré wu yow ba pare ñu lay fay door a jële loolu da woon danañ leen ko yëgal asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, waaw kon daal dinay def li nga xam ne nag mooy situation bi mooy ministre bi jamono ji kon fanweer ak ñeent mën nañ jàpp ne koy ñoo nekk sous traitement dinañ ci daal di dikkaat ci ni mu gën a yaatoo euh, Alassane wooy ci jotaay wax sa xalaat bi jël beneen auditeur bu ñu ko waxtu yu mayee ci 88 628 98 98 allo salaamaaleykum. waaw maa ngi fi. yaa ngi ñu ngi ci jàmm waa. Ah, fu mu mën a doon oto yi nga xam ne dañ koy sax yooyu yëpp hmm. ñu wàññi ko dugg ci oto jël sa place toog lan nga béeg lépp ñu bàyyi ko te yooyu it xar hmm. jumaa yi nag waa Omar yeen rek ñoo ci jël bopp ba état bi néew kenn julli ji àjjuma hmm. Omar yeen ñoo ne xadaratu jumaa bi dañ koy bàyyi ak àjjuma ji waaw mais yeneen jumaa yi moom kenn waxul ci dara nag jël nag yaa xool yàlla suñ koy séenul yàlla bu fa yàlla na ko yàlla ne mu yom foofu bañ law ci réew mi fenn ci yenn bànqaas dafa vraiment ñun suñ dund ni mu demee moo doy waar ñoo xam ne ñooy bokk benn bool ji lekk di naanandoo ci ay kaas te mel na bu duggee ci réew mu mel ne réewum senegal moom moom buñ ko jëlu ay matuwaay bu hmm. taawaanee baawaan rek moom dana àgg foo gaaw a wàlle la wax dëgg yàlla di ñu toog seen kër yi te bàyyi eh, duggante ba génn ci yu bari yooyu ñu wàññi daal lu mun ta ñàkk nga dox ko daal liggéey dem jimbi fépp foo hmm. a aar ah, da a hmm. soxna maam Karim bu baax jël na ay ndimbal yu baax yóbbu ko ci jumaa jëlu ma téeméer jënd ko ay saaboo ki satal ak barab yi ñuy defar néew yi yëpp ñu koy raxas sant di ko ñaan gudd fan ak wér doomi Cheikh Mourtala Adio ji lépp lu jóg jëm Tuubaa dana ci dugal loo xam noonu la ko defe woon te Masaalikul Jinaan mi ngi ko luyee kaar yóbbu ko ko ak feneen ak feneen kon ñu koy sant di na ñëpp def na moom merci beaucoup réew réew ñoo ko bokk lu fi dal dal kenn dal ñëpp jërëjëf waaw ah, euh, kon nag euh, ñu xaar keneen Alassane ñu jël ko allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam waaw Adama waaw Bàcc Bàcc maa ngi lay nuyu ak sa technicien waaw kay ñu ngi lay fay. Eh, di ziar Fatou Mbouck Mbaye laay hmm. maa ngi ñaanal nag sama mbokk yi nekk bitim réew ñoom Isma Ba ci Belgique. Hmm. ñoom Diop ak Malick Sall ak ñoom Chérif yëpp. Hmm. yàlla yàlla dafa jàmm ñëpp. te it nag yow eh, Adama. yëf yi ku ne war na cee dugal loxo. bu kenn jàpp ni borom alal rek ñoo ci war a dugal wala état rek moo ci war a dugal. ñun ñii di woote wax sa xalaat sax war nañu cee dugal. parce que bu ñu yoroon dara duñ nekk serveur yi sax di di di di wax. ñun ñëpp ci war a dugal loxo ku ci ne ca façon ba nga mane jiru sax ñu koy def mbumbaay ak leneen. mais beneen bi Adama. waaw man affaire wu problème mu transport. vraiment ay xat-xat looy ci oto bi yëpp man d' naa ci. ay nit yegg ba nañu arrêté liaison yeeg yooyu non yooyu moom bu mu fi am. parce que nag économie réew mi boo koy bloqué ko amul ay mesures d' accompagnement da ngay nit mais parce que même man luuma yi ñu doon arrêté ci àll bi sax bon d' jàpp naa ne waruñu ko woon arrêté brutalement quoi. Mhm. parce que ku ci nekk ba luuma day jub si da nga naan luuma sàngam bu ñëw lii laay jaay. da mhm. préparer say affaire nga xam ne boo jaayee ci nga war a préparer sa dund une semaine nga ñëw ñun la doo ko fi jaayee mais loolu tamit yi nañu bàyyi xel lañ yëpp weer dee dañu leen fay ministre de l'intérieur président yëpp. Mhm. ay boromi salaire lañ boromu salaire nag ak yi nga xamante ni euh, la góorgóorlu la. booy teg mesure ci boppam da nga koy avertir. au moins nga ko yow sam mbir ñi bu dellusee nangam. mais nit ki xëy andee bagage sam te nga ne ko doo ko fi lale mais loolu jaaduwul quoi ñun ñëpp bëgg a defar nag. Hmm. nag affaire bi xaw na doy waar quoi maa ngi jégalu. ok euh, Alassane bu fekkee waxtu yi des na ñu jël keneen euh, mu ñuy xamal ne kon fii lañ koy yemale waxtu yi dab nañu kon dinañ ci dikkaat xibaaru guddi gi gën koo yaatal ñu jaajëfal bu baax ñu woote ñu nekkoon ci ligne bi dig leen daje xibaaru guddi gi jaajëfal bu baax a baax Alassane Wade mi fare woon ci sottandikukaay bi muccug biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeek tool nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.